Le marabout rend visite à la population ivoirienne à partir de ce 17 jusqu'au 26 juillet 2022. dix jours en Côte d'Ivoire cinq jours biir Abidjan ak li ko wër yeneen juróomi fan yi biir Yamoussoukro waa Côte d'Ivoire am ngeen gan am ngeen chance ndax alxakim bi suñu borom may agsi na ku ko bëgg a gis ku bëgg a toog ak kilifa gi bul xaar wooteel ci numéro whatsapp bii di plus 221 77 366 46 36 wala plus 221 77 091 77 26 salaamaaleykum mbokki internet yi dal leen ak jàmm ci Dakar Live TV ñëw ak yéen ci actualité fait divers yi Touba moom Abdourahmane Mbacké nag dafa doon génn nag xale bu jigéen bii di wuyoo ci turu Ndeye Diop naka la ko ëmbalee nag xale bi ñëw di ko ko xamal mënu woon supporter li ni mel mu daal di koy rey moom xale bu góor bi di wuyoo ci santub Mbacké nag juddu ci atub 2005 ak Ndeye Diop mi nekkoon ab élève ma toll ca fukki at ak juróom dañu doon génn seen relation nag jeexoon na ci lu yàggul dara moom xale bu jigéen bi nag naka la yëgée ni dafa ëmb bés boobule ba muy génn seen kër daf leen xamal ni dafa war a dem récupérer ji bulletin deuxième semestre am ca biir nag la daal di ñëw kër Abdourahmane daal di koy xamal ni dafa ëmb te moom moo ko ëmbal ba mu xamee ni nag moom xale bi mënu supporter li la koy daal di rey moom élève bi nag ginnaaw seen waa kër ba ñu toogee lu yàgg gisuñu ko dinañ commencé lancer ay avis de recherche di ko wër ndax sax ba ci kii di Abdourahmane di ko laaj ndax gisu ko ndax ñoom ñaar liñ doon gis ñuy nekk bëri na trop ils yamu mu ak enquêteurs yi nag moom Abdourahmane di leen wax ne ginnaaw bi Ndeye Diop waxee ko ne moo ko ëmbal te nu koo supporter dafa jëloon ab xeer daal di ko koy dóor ca bopp muy continuer nag di débattre daal di jël ab paaka jam ko ko ci baat ba mu paree ca loolu nag dafa jël koor yi daal di koy def ca ñaari saaku boole ko ak benn mat laa tëmbal ko ca benn réservoir d'eau yëf ya nag commencé xeeñ mooy attiré attention population bi ñaari fan la corps bi di am ca boobu les réservoirs commencé di décomposé wu ndax moom Abdourahmane dimanche le 3 juillet ay boori 11h la daal di faat kii di Ndeye Diop démb ci mardi bi dans la matinée la ñuy découvrir kooru Ndeye Diop bi moom Abdourahmane nag dina daal di xamal seen waa kër ne moom moo daal di faat élève bi le ñoom itamit nag dinañ interpellé waa police ba ñu daal di koy teg loxo ba placé ko en garde ca guddib démb di jàpp mercredi bi nag tey dina amal ab reconstitution des faits ak takkader yi moom nag lamu mu leen xamal aussi mooy relation Ndeye Diop jeexoon na depuis le mois de décembre ñu ngi leen di jaajëfal ci déglu beeg seetaan bi di leen ñax ci ngeen bañ a fàtte abonné wu aimer partager même commenter les vidéos